waaw ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay bu baax a baax. sa présence fii si conférence de presse bi nga xam ne pour libérer. je pense que mooy présence ñi fi nekk ñëpp ah. ay temps des rappeurs activistes ñi nekk ñëpp tey mooy ñëw taxawu suñu frère taxawu suñu suñu suñu xarit bi nga xamante ne ñoo bokk si même secteur bu ñu évolué mu nit dof wala donc loolu moo tax tey ma ñëw parce que bii problème bi di am mi ma fekk ma amoon voyage bu ndaw et ma yëgee ni gars ñi ngi def benn point de waaw. bi ma yëgee ni bi ma yëgee ñu ngi def benn point de presse ma ñëw assister ko parce que li mu li ko dal mën na dal ci ñun ku nekk parce que ku nekk am ci ñun conviction ku nekk am gëm-gëm ku nekk am une vision te ku nekkee jël kàddu di wax ku nekk nag ci ñun mun nga wax yenn saa li nga wax ëpp mën nga wax am loo ci jublu nit ñi ko neneen donc loolu nag autorité yi nga xamante ni ñoo ñànk wàllum justice bi ñoo war am benn marge de prudence par rapport ak genre yooyu noonu sàqam tumaak bu demee ba defaat poste jéggalu pour man war nañ mën a génne ko fi mu nekk bàyyi ko mu dellu ci bi parce que nit ku am solo ci Sénégal quoi. cas bi dafa mel ni nga dañoo déterminé parce que gis nañ tey présence rappeurs yi bëri nañ fi trop lan ngay lan ci loolu. mooy yoon mooy yoon li mooy hip hop après coow yi après clash yi après lépp man nit bu nekk ci situation dañu war a fàtte lépp li nga xamante ni seq nañ ko ak moom wala ñu ngi koy dund ak moom ñu ñëw taxawu ko ba mu génn ci situation boobu noonu après nag ku nekk am nga li nga xamante ni loolu ngay incarné